tey bu ma teewee fii ñuy inauguré lu mel nii ci quartier bii nga xam ni dama jàpp du quartier mais gros village muy Hersent sama xel ak sama xalaat du ñàkk mën a dem ci suñu baay suñu baay yooyu nga xam ni tey bu Hersent amee école wala Hersent am juma wala Hersent am case des tout-petits wala poste de santé ñoom ñoo ko taxawal maa ngi gis nii ma nekk xale di gis suñu bàyyi mbay jaw muy jaabante yor carnet boobu mu doon bindi cotisation yi maa ngi gis góor gi Ablaye Der maa ngi gis Baye Paté Soumaré maa ngi gis góor gi Modou Ceneba maa ngi gis Imam Dam maa ngi gis Pa Mika Ba maa ngi gis Baye Atou Boy maa ngi gis Pa Abdou Diop maa ngi gis góor gi Jogomaay Jéy maa ngi gis maa ngi gis suñu wayjur yépp nga xam ni su ma leen doon lim tey du ma fi jóge te ñoom ñoo xeex ba r am équipement communautaire yi mu am te ñu ràññee woon ci loolu suñu yaay maire Waly Bey nga xam ni tey case ba nekk diggante R100 boo waxee ni la case maire Waly Bey ndax liggéey bu am solo bu mu fi doon liggéey bi ñuy xëccu pour bugg nekk maire nekkul woon ni dañu bëgg a nekk maire pour bëgg a nekk maire parce que yàlla ci mbaaxam dimbali nañu ba bi ñuy am ñaar fukki at ak ñeent rek commencé nañu di liggéey te li ñu doon am ci wërsëg ci li ñu doon liggéeyee mënoon nañu permettre ñu dund mais mënoon nañu permettre aussi ñu dimbali suñuy mbokk yi ñu bëgg a dimbali mais dafa fekk ni ñun dañu nekk xale. nekkoon ci l'école bi di fi jàng sànq am na ku ko wax mu nekk loo xam ni dama ko gëm mooy que la pauvreté n'est pas une fatalité c'est-à-dire ndóol nekkul loo xamante ni fatalité la e message boobu dama koy lancer di ko lancer ñun bi ñuy jàng ci école bi dañ daan xëy di ñëw di jàng si école bi boo xëyee doo am loo ndékkee du tee nga dem jàng soo wàccee des fois nga añ des fois doo añ du tee nga dem jàng et tey jii loolu lépp ay nettali la li may wax nii créé wu ma ko soo mësaan xëy soo amee kaasu fonde danga daan sant yàlla parce que boo xëyee balaa ngay jàngi da ngay dem rooti man moo daan jàng si damay xëy dem 5 heures ma matin la sama papa daan yeete. ñëpp dem roote boo rootee ba ndaali fees siwo bu mujj bi moom ngay sangoo soog a dem jàngi ndékki moom daawoo ko xalaat xanaa yàlla dimbali na suñu génnee récréation ñu ànd ak suñu xarit Serigne Sidi Gueye Diaw dem seen kër kër Baye Mbaye Diaw parce que maire bi da daan defar foofu fonde bu ko defee nii ñëpp ci lañ daan xéwlu soog a ñëwaat ci école primaire bi donc pour wax wayjur yi pour wax wayjur yi ni jafe-jafe yi bëri nañ ci koñ bi koñ bi bëri na jafe-jafe mais bu waajur yi takkee comme ni ko suñu yaay yi di defee parce que damay wax ni ersan mën nga leen reprocher lu nekk ba mu des ni koñu liggéeykat la soo xëyee fajar yaa ngi gis suñu yaay yi ñu takk seen yor ay paan di génn koñ bi di liggéey yaa ngi gis paa yor ay oto ay chauffeur di génn di liggéey kenn du toog ci koñ bi su ngeen góorgóorloo continuer di investir ci xale yi xale yi nekk ci école bi ay futur maire ñu ngi ci ay futur ministre ñu ngi ci ay futur président de la république li ngi ci loolu moo tax ñuy xar suñu tànk tubéy parce que xam nañ ni mënuñu ci xaalis bi maire bi yor parce que budget maire bi soo ko jëloon dugal ko R100 du doy nga dugal ko Daaru Salaam wala de du doy nga dugal ko Fayu wala 2 du doy nga dugal ko parcelle Assainies unité 1 wala 2 du doy Balaabe mu ngi xaar Cité Lamine mu ngi xaar Aïdina Fall mu ngi xaar Diamaguène ak Sampaate ñu ngi xaar moo tax ñun dañoo opté ni ni ñuy defee social duñ ko def comme ni ko ñeneen ñi di defee. vous aurez remarqué que bu xew-xew amee muy korité wala tabaski am na sax sama dëkkandoo yoo xam ne moom xam naa bu fekkoon dañoo gàtt xel dinañ ma mere parce que damay wax waa maire bi mën leen bu ñuy séddalee bu ñu jëndee ceeb di ko séddale. nañ ko def ba bu buñ ko defee noo xamante bi nii dañuy filmer nit ñi wala ñu koy jël di ko yóbbu suñu koñ damay wax suñu waa mbedd koñ man leen bu amee lu ñuy séddale ci mairie bi yéen moom du ngeen am parce que li ñuy séddale dañuy jàpp nit ñu gën a néew doole ñoom lañ koy jox te man dama bokk ci ñi contre aussi xew-xew am lu mel ni tabaski wala korité ñu ni dañuy def social jënd ay saaku soble wala ay sac de pomme de terre rangale ay nit jël ko def ko ci ay mbuus ñu ànd ak seen i doom nga koy jël di leen ko séddale xale boobu ànd ak yaayam di gis loolu loolu daf koy marqué à moo tax man ma ni social bu ñu koy def neneen lañ koy defee mais duñ ko defee noonu def social bi ñu opté mooy fexe ba ñu ñëpp bokk muy poste de santé muy école muy case des tout muy espace public ñu fexe ba yooyu ñu aménagé ko loolu moo ñu may tey jii ñu mën a tabax poste de santé fay loolu moo ñu may tey jii ñu mën a tabax poste de santé cité Kër Khadim loolu moo ñu may tey jii ñu mën a tabax vingt six salles ci école yi nekk ci commune bu Thiès es yépp muy école Demba Diakhaté bu cité Senghor école Lamane Ngom ak Faye école Maodo Kane ak ay ecole ay ay Nafal bépp école bu nekk ci commune bu Thiès Est commune bu Thiès Est tabax na fa ay salle de classe yóbbu na fa matériel informatique te loolu dañ ko def pour dimbali yaay yi nga xamante ni jigéen ñi nga xam ni ñoom ñoo gën a sa sonn ci njàngum xale yi parce que sama classe geeg sama yenn mag yi moom boo leen laajee seen doom yi ban classe la ñuy def sax xamuñu ko jigéen ñi ñoo gën a sonn ci njàng mi moo tax lu ñu def si njàng mi jigéen ñooñu moo tax ñu def ko donc ñu leen di invité dëkk bi metti na mais na ngeen muñ te na ngeen gën a toppatoo seen doom yi parce que su ngeen leen toppatoowee bu ëllëgee incha allah lépp loo xam ne naqari woon na leen tey seen doom yi dinañ leen ko réglé incha allah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax rek ni xam nañ ni jafe-jafe yi bëri na bi mu ngi jéem xam nañ ni mënuñu def lépp mais incha yàlla dimbali nañu def taax mu mel nii carrelé salle de classe yi dépensé fi alal joo xam ne soo ko xale xaymaa dina egg ci 68 millions bu ñu yàlla dimbaliwaatee ba ñu amaat leneen bu neexee yàlla yeneen salle de classe yi féete nii ak yi féete ne dinañu fexe aussi nu ñu ko defee nii parce que je crois boo doon wër tey ci Thiès à part école catholique yi pour nga gis fa école bu am bâtiment yu yànj nii defe naa ni waa école Kaba Sall kese ñoo ko am d'ailleurs sax sama gaa yi dëkk fële ñu may tooñ naan ma met da ngaa beral sa loxo sa waa koñ mais jàpp naa ni damay leen tooñ ji leen tontu rek naan leen kuy xalam tamit di ci jaayu ah, donc ñoo ngi ñoo ngi gërëm ñëpp ah, di sant ñëpp ah, di terminer rek di lancer un appel parce que gis nañ ni ñu ngi jëm ci ay élections présidentielles Hersent c'est une seule et même famille ñun dañu nekk ci langue politique yi suñu sañoon suñuy politique ñëpp dañuy ñëw ànd ak ñun jàppale ñu parce que li ñu bëgg ñun mooy defar suñu koñ defar Thiès mais xam nañ ni unanimité amul fenn ñëpp ànd ak yow amul fenn mais ñu bàyyi xel rek ni lu mënti am nañu xam ni nous sommes une seule et même famille que ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor defar réew mi moo ñu ñor élection compétition électoral kese la bu ñëwee ñu ñaan yàlla nañ ko defee ci jàmm ku nekk far fa nga bëgg far bu yàlla defee élection yi passé ñun ñëpp ñu dajaloo waat yàlla may ki nga xamante ni tànnal ñu ki nga xamante ni moom moo gën ci Sénégal ki nga xamante nii dina mën a dimbali nit ñi ba jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi jànkantoo leen moom ñu génn ci jafe-jafe yooyu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mais je ne terminer sans ma beral nuyoo ak remerciement bi fond du jigéen ñi nga xam ne ñooy wax les amazones de Ousmane Diagne te Ami Diaw jiite leen ñu ngi may guddil di ma bëccëgal fu ma nekk ak fu ma nekkul donc fi ngeen ma féete xam naa ko li ngeen may defal xam naa ko yàlla ni am fay moom laa leen di bàyyil yàlla leen yàlla fay may remercier aussi nos amis de la presse qui à chaque fois que nous organisons viennent répondre présent ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm ñëpp di jégaluwaat bu baax aussi ci toogaay bu yàgg bi du ma terminer te remercier wu ma waa café ga waa xaar yàlla maa ngi leen di bu baax di leen sant jërë ngeen jëf merci. bu nga yëkkati kàddu yi ci kàllaama wolof kàllaama bi ñu nam pour mun a génnee li nekk suñu xol li nekk sama xol tey mooy dama am mbégte man inspecteur chef de circonscription ndax euh, bi ñu ñëwee Thiès gis carte scolaire bi wax nañ ko sunu kilifa ministre yi ñu fi nekkaloon à chaque fois ñu ne leen Thiès c'est une grande ville essor démographique bi assiette foncière bi mu ngi jeex donc école yi yi ci ëpp ay classe double flux la te population bi foofu lañ dëkk terrain amatu donc li am ñu war ko mun def mooy raser yëkkati en hauteur wala boo mënul raser la fa nekk nga yëkkati ko ci kaw donc tey ji bu ñëwee fekk fi lii maa ngi wax ne vraiment su ma xool sedd na kontaan naa trop monsieur le maire yow ak sa équipe municipale ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey am nañ mbégte loolu moo waral inspection euh, dañu mobiliser woon mais ku ne xam na ne suba ci la ñuy organiser examen wu enseignants yi te am nañ activité de formation moo tax ñu réduire délégation bi ànd ak sunu xarit sunu naataango soxna Awa Diop volontaire japonaise dañu am mbégte trop fekk fii yéen waa r seen doom madame Ndiaye madame Ndiaye madame Sène Absa Ndiaye mu ngi nii secrétariat particulier de l'inspection moo ko yore dëkk R100 jànge R100 màgge di liggéey ci inspection bi liggéey bu mucc ay di leen seedeel ne seen doom Absa Ndiaye ku am kóllëre ku sawar ci li muy def la ñu leen di ñaan ngeen ñaanal ko yàlla dëgëral taxawaayam leneen di seddal ne rek lépp li nga xamante ne moo aaju ci wàllu sutura mooy lu confidenciel moom lañ ko dénk mu nekk ku am kóllëre ku fidèle ku ku ku ku ci liggéey ñu ñu ngi koy ñaanal di leen sàkku ngeen ñaanal monsieur maire man de bi ma ñëwee Thiès dama la xam laata ngay nekk maire ma man damay fréquenté mouvement associatif ñëw naa fi école Kabasal ci don de sang ASC R100 dem naa ànd ak ASC R100 mouvement équipe euh, euh, ci ci campagne nationale bi phase nationale yi waaw ànd ak donc loolu moo tax li ma doon fréquenté R100 li may wax dama ci teg sama bët mu leer may seede ak sama aqulaa taala bi ñu falee maire yi ba pare ñu ne maire est Ousmane maître Ousmane Diagne lañ fal dama ko woo di ko féliciter ma ne ko le maire yow de tey la yàlla dogal ngay takk écharpe bi mais nekkoon nga mair ba pare ma bu ko vous étiez déjà maire ndax ni mu doon doxale loolu la maire bi doxal jege sa askan donc lii dafa nekk loo xam dafa ñëw rek pour dëgërëw may wax ne toujours su ma ko gisee dama naan ko monsieur le ñun de suñu xam-xam soriwul mais gis nañ ne maire buñ koy bind da ngay jël juróomi araf. Mhm. M A I R E. juróomi araf yooyu moom moo lay permettre nga bind également li ñuy wooye mbëggeel. ci mhm. tubaab ci nasaraan verbe aimer. Mhm. A I M E R. mooy monsieur le maire yow de vous aimez les populations de votre commune. vous aimez les populations. et les écoles de votre commune et vos écoles vous le rendent très bien loolu mun naa ko seede di leen wax ne li nga def nii du teg ndax bi école tijjee ñu ngi doon organiser ay fora yoo xamante ne japonais yi ak la JICA dañ fi indi programme ñu ne dañuy jàppale école yi mais gox bu nekk na ci dugal loxoom na nit ñi engagé wu pour wax ne dinañ jàppale école yi bi ñu tolloo commune est liñ fa bëggoon dañ ne mais loolu mat na fa ba pare ndax monsieur le maire école bu nekk renforcer na la jox na la matériel de reprographie jox na la papier jox na la encre jox la matériel li may wax nii directeur d'école yaa ngi nii mun nañ ko seede donc loolu li nit ñuy doon bëgg moom jiitu woon na ci ba pare moom ak équipe municipale am monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm ci loolu di la wax ne li nga def da ngeen ko teg ci ay loxo yu wóor ndax équipe pédagogique bi nekk fii mun nañ seede ne ay jàmbaar lañ mais di seede également ni directeur d'école bi fi yàlla teg tey aussi jàmbaar la di wax ne monsieur Diakhaté moom keroog bi ñu ko nommé directeur wax naa moom nekkoon na directeur ba pare laata ñu koy def directeur parce que centre bi nga xamante ne fa la ñu defee entrée en sixième enfant malvoyant yi di fa defee booleeg yeneen enfant yi muy centre Idrissa Diop yàgg nañ ko ko dénk moom laata muy nekk directeur mu koy jiite di leen xamal ne am ngeen chance am directeur bu sawar bu bëgg liggéey bu ngeen ko jàppale résultat yi dina mun a gën a jëm kanam di wax ne laata moom ñu ngi nuyu lu doyen Cheikh Kéwé moom lañ fi fekkoon mu dem euh, le doyen Abou Dramé yàlla nu suuf sedd ci kawam remplacé moom fii la liggéey ba le 28 janvier au soir ba 18 heures mu wàcc nettoyer école bi ñu defar ko mu set mu woo ma ne ma inspecteur pare nañ li ñu doon waajal ndax ci ëllëg sa lañ waroon ñëw def fii benn test pour tester les meilleurs élèves en mathématiques mais dafa ñibbi këram rek ñu woo ma ne ma wàcc na liggéey. Hmm. donc dafa liggéeyal administration ba 18 mu wàcc yàlla yàlla jël ko sunu borom def li monsieur Dramé may sàkku mbooloo mi ñu ñaanal ko moom ak bépp néew bu ñu xam. yàlla na suuf sedd seen ko yàlla na leen yàlla xare àjjana di boole ci ñaan yi le doyen Mago Mangom Ndiaye parent d'élève la woon bu buggoon école bi ñu koy seede fii lañ doon nekk ak moom moom aussi yàlla jël ko ñu boole ko ci ñaan monsieur le maire je voudrais instruire le conseil de gestion le comité de gestion de l'école les parents d'élèves gannaaw bi ma ñaanalee parents d'élèves yi ne leen yàlla na ngeen dund ba fekkee njëriñu njaboot ji yàlla bu yaakaar tas li ngeen ñu dénk xam nañ ko te ñu ngi ciy góor may wax ak xale yi et c'est ñu gis leen fi parce que na benn borom xam-xam bu wax ne lépp looy def te boole woo ma ci day mel ni bokkuma ci tout sa qui se pour mois cent moi et contre moi mais xale yi ñu ngi fi ma bëgg ñu jël exemple roy ci maître Ousmane Diagne roy ci bépp koo xamante ne jaar na fii dem ba nekk ba am li mu mën del si di jàppale école bi xale yi loolu bugg naa ngeen bàyyi ci xel pour bu ëllëgee ngeen ñëw tam bay seen waar monsieur le maire ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal nga yokk fii niveau un la woon nga ñëw def ko niveau R plus un mhm. ni nga nekkee maire de commune aujourd'hui ñu ngi lay ñaanal pour nga jàll ci niveau supérieur bi yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def loolu nag moo tax comme vous êtes entré dans l'histoire mhm. j'instruis le directeur de l'école les parents d'élèves le comité de gestion le bloc là nga xam ne yow yaa ci tombe defar ko bloc bi école bi am na parrainage ba pare ñu tuddee ko Kaba Sall mais bloc bii mhm. nañ ko tuddee bloc maître Ousmane Diagne mhm. bloc dañ ko tuddee bloc maître Ousmane Diagne moo ko fekkee defar ko monsieur le directeur c'est une instruction avec les parents d'élèves le comité de gestion dans le même ordre d'idée le doyen Abou Dramé bi yàlla def mu dem nañ jël salle de classe bii nekk ci wetu direction bi tuddee ko wane ko en exemple loolu dem bu weesoo moom bëri na fi ay exemple le doyen délégué de quartier Mamadou Mar Ndiaye ku sonn ci école yi la madame Marème Mbengue fële ci kaw taxaw naa fii fekkee du benn yoon du ñaar yoon muy jël alalam di jàppale école bi ñooñu mun nañ liggéey ak le comité de gestion les parents d'élèves tuddal leen salle de classe yi wane leen un modèle d'exemple pour que xale yi di roy ci ñoom ndax ay nit ñu baax la donc nañu jàpp bloc bii moom bloc maitre Ousmane Diagne classe Abou Dramé classe maître Mar Ndiaye délégué de quartier Mar Ndiaye classe Marème li ci des nag ngeen séddale ko képp koo xamante ne gis ngeen ne mun na nekk royukaay ñu tuddee ko monsieur le maire vous êtes en face d'un inspecteur comblé qui au crépuscule de sa carrière se dit mun je peux partir tranquillement parce que en venant à Thiès voilà ce que je souhaitais te yàlla def na ko yéen yéen a ci jàpp yàlla na leen yàlla fay kontaan naa yàlla na yàlla kontaan yàlla na ngeen kontaan na leen yàlla fay yàlla na yàlla gërëm encore une fois parents d'élèves yi dund leen ba fekkee njëriñu xale yi yàlla na ko yàlla def ñu leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf à Cité Kër Khadim pour inaugurer le poste de santé de Cité Kër Khadim et nous voilà aujourd'hui ici à Ersan dans son fief véritable pour en tout cas procéder à ces deux inaugurations. Donc pour vous dire que monsieur le maire Ousmane Diagne est un homme est un homme de développement. Monsieur Ousmane Diagne est un homme qui œuvre dans le concret. Quand je dis dans le concret, il a des réalisations à mettre sur la table parce que Depuis quelque temps en tout cas, et depuis ces deux ans qu'il est là, il est en train de faire des réalisations immenses pour la commune de Thiès-Est. Pour vous dire que c'est ça qu'on attend d'un maire. Un maire qui règle les problèmes des populations. Ce n'est pas un maire qui parle à droite et à gauche, mais c'est un maire qui agit pour la population. Et c'est avec cela que Nous sommes heureux de cheminer à ses côtés et nous voulons lui assurer de notre pleine collaboration, la collaboration pleine et entière du district sanitaire de Thiès. Parce que quand même, la santé demeure une compétence transférée. Étant une compétence transférée, nous ne cesserons jamais de l'appuyer pour qu'il puisse encore faire d'autres réalisations. Parce qu'il faut le dire, Il nous reste aussi la construction d'un nouveau centre de santé. Et là, je pense que M. Ousmane Diagne a véritablement compris la notion de collaboration, euh, la notion de redevabilité. Parce que quand même, à la fin de son mandat, l'on pourra dire que M. Ousmane Diagne a fait d'excellentes réalisations. Des réalisations sont palpables, des réalisations qui seront à son honneur et à l'honneur de son équipe municipale. Donc véritablement, euh, nous lui souhaitons bon vent, nous lui souhaitons que des réalisations soient accomplies. pour dire que c'est une joie de se retrouver dans cette école, parce que le secteur de l'éducation et le secteur de la santé demeurent des frères. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le plus le plus loin village du Sénégal vous trouverez un enseignant vous trouverez un infirmier donc c'est un couple inséparable et c'est avec joie donc que je me retrouve ici dans cette école pour procéder à cette inauguration donc monsieur Diagne nous vous remercions en tout cas au nom du district sanitaire de Thiès pour tout ce que vous avez eu à faire pour le district sanitaire de Thiès mais il il faut le dire vous le faites pour votre population et votre population ici présente vous remercie par rapport aux actions que vous avez à faire. En tout cas, soyez rassurés de notre collaboration et nous vous remercions beaucoup. Et vraiment, je fais un clin d'œil à mon collègue Arfansek. Lui aussi, c'est un éminent travailleur. Il a fait beaucoup d'actions et c'est une joie aussi d'être à ses côtés pour mener à bien les réalisations pour le compte du, de la commune de thiès mais aussi pour le compte de la région de Thiès. Donc sur ce, vraiment, je vous remercie et je remercie, je remercie toutes les personnes présentes. Merci beaucoup.